Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. mbokki catholique seen mbokkam citoyen di Saalum Saalum Ibrahima Mbaye dëkk Kaolack moo dellusiwaat rek di yeesal ak jaaxleem ak ak naqaram naqar mën naa koo tuddee naqar parce que dafa am ñaar ñu ma seq ñoo xam ne ñi ku si jëf ma xeeb la ku si wax ma xeeb la mu di politicien ak kilifa tarixa parce que ñun dañoo am benn problème bu bu boo xam ne xamuñu fu ñu koy jooyee ji ñun dem ñoo noot si zaahir noot ñu si baatin zaahir bi mooy liñ jàkkaarloog moo di les politiciens baatin bi mooy di ñu gëmloo loo xam ne li dara du si dëgg dara du si dëgg parce que dama defe ne lu nit gàtt-gàtt xam-xam ak lu nit gàtt-gàtt gis-gis bi 60 ba tey war nga xam ne senegal doxul meetar te lu ko dax taxa ñàkk dox meetar ñaar yi zaahir ak baatin bi ma leen wax waxtaatal politiciens yoo xam ne dem nañ ba am na benn politicien bu nekkoon Kaolack bu jur nañ wax Ablaye Diack moom moo daan wax ne ñun ñëpp ay sàcc la kooku moom dafa dafa jébbal ne ñun ñëpp ay sàcc la baatin bi mooy toppi sëriñ ñuy toroxal askan wi sëriñ soosu fekkee ñuy toroxal askan wi ñoom ñooy walbati di gërëmaat kiy toroxal askan wi moo tax ma ne taxaw leen nag xel jëriñu dara lu may xalaat te dama jàpp ne ñu ni gërëm fekkee noonu dafay torxal dañuy torxal seen ak njaboot doo dégg ngërëm ngërëmaat mais aw askan la ñuy torxal parce que déggu leen ci frontières yi ab doomi sëriñ mbaa doomi politiciens yi dafa faatu déggu leen ko ci géej gi ñu fay daanu di lap déggu leen ko ci géej gi ñu leen di fetal mu di mool yi déggu leen ko ci ci aventure bi lépp ñun la te ñooñu ñoom ñuy gërëmaat même individu yi nga xame ne ñoom ñoo ñuy toroxal moo tax man leen ni ñu taxaw jàngat benn seetlu seetlu gi mooy danoo tëj Karim waa Touba ñaan guddi ñaan bëccëg ki ni ñaan lànk ñu jël Karim Wade teg si avion yóbbu waa Touba continuer gërëm ci def loole affaire bi dafa jaaxal dafa affaire bi dafa yéeme de ñu jël xalifa Sall dugal ci kaso bi waa Tiwaawoon di ñaan guddi di ñaan bëccëg faalewuñ leen ñuy continuer gërëm ki def loolu mu di Macky Sall man a man donc man dama am benn dama man dama damaa xaw a confuse daal dama damaa jaxasoo te ñi ma jaxase moo di ñi ma seq 60 ba tey li tax ma ne leen ñoom ku leen topp taxaw ku leen jub dëpp parce que bu njëkk mën na noo wax sax amoon na fi ay tasawuf mais léegi ay tas suuf ñoo fi nekk tas suuf suuf yëpp tasaare nañ ma ni rek ku ñu jox noo leen ko joxee baax na te duñ la masa laaj nag li ñuy jox foo ko jële ndax da ngaa sàcc ñëw jox leen déedéet ndax da ngaa jër ay faux billets jox leen déedéet ndax da ngay jaay dorog jox leen déedéet ñoom loolu yëpp soxlawuñ si dara ñu ngi sant ak gërëm rek parce que yaa ngi leen koy jox réew moomu ñu toll fa may faral di dégg benn journaliste di wax ne ku artuwul da nga atte ñii mënuñoo artu kenn parce que dañ seeni lex moo fees ak tàngali buur tàngalu buur boo ko sexee bu ne dang dang ko dang doo ko yàppi waaye gis nga lii taxaw seen kanam bu ngeen defee ne sëriñ sii ñoo leen di jàppale pour mu dañ nax ngeen suñ bopp nax ngeen seen bopp jóg leen fajal ko seen bopp man Ibrahima mbay man maay laa lancé appel fekk leen Macky Sall ci palais bi bu dee jaasi jaasi leen bu dee yet yet leen pour ñu am jàmm ngeen ko deful du am jàmm bu ngeen ko defut du ngeen masa am jàmm tey ñi ngi ràttale ñëpp di tëj rek yéen xanaa lu waay gàtt-gàtt xam-xam xool seen vidéo yu ñàkk bopp yi la nga xam ne lépp ay montage la lépp di fekk dara du si dëgg ngeen may wooye ne ma sëriñ see war a wax waaye bàyyi leen sëriñ si yenn tali sëriñ ñooñu seen bopp lan tal fekk leen Macky Sall fu ne parce que li muy joxe ñun yoruñu ko parce que ñun dañoo tuddee ay néew ñu doole te man damaa jàpp na ñun ño ñun néew yu doole yi dañoo néew doole mais doonuñu ay baadalo mais baadalo pire la ñuy jox lépp mu jël lépp kon damay wax ne baadalo yéen la. yéen yéenay baadoolo yi delloo leen seen bopp si yàlla te xam ne jaami jaami yàlla lan keneen ku dul yàlla yorati jaam fekk leen Macky sàll ci biir pale bi lum ko jaral nañu ko jaral lu ko ëpp Ousmane Sonko dangeen ko fi ba par A ou B wala ma dee ñuy wax ne booy wax di wodd wax yéen yéen yéen kuy nekk ak yéen da booy d'abord doo ko tey ay yéefar kaafur piir moom ngeen kaafur mooy toog gisaw askanam di xiif di mar di rafle wopp seen vaccin yi nag moom lay tëjee vidéo bu gàtt la ku ko kuñ ko su vacciné dana la dana la rey li ñuy vacciné li leen di seen bopp ñoom ak li ñuy vacciné sëriñ si ak li leen di vacciné bokkul de yéen li leeni di vacciné yëpp ay tooke la ma wax leen ko léegi ngeen dégg bu ngeen gisoon sëñ bi toog vacciné wu lam leen leen ko vacciné ak li leen vacciné bokkul loolu lépp ay dóor la lépp ay dóor la ma xamal leen ko léegi dama leen koy xamal ngeen yëg seen bopp fekk leen Macky sàll si fa mu toog génn ko fa du dara lu may ab sàcc sàcc rek Ablaye Diak waxoon nañ ko ñeene yéen ñëpp ay sàcc ngeen 2000 ak tey foo fi jëlee milliard foo ko jëlee sàcc sàcc sàcc du ngeen lenn lu may ay sàcc yéen ak sëriñ see yem ay sàcc piir ngeen ku leen téye baab ku leen téye téyeb ku leen babaab sàcc asalaamaaleykum Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.